wasalaatu salaam ala imaami almursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaan ci yàlla jataay bi yàlla na ko yàlla boole ci jataay yi mu nangu di leen jottali nuyoo suñu xalifa seydina muhammadu muxtaar ibnu seydina manjoon ibnu seydina limaamulaay alayhi salaam ab la ma jagleel ngir ma teg ko ci loxo sunu kilifa di lépp ci ñun di cheikh bashir abdou xadr ngir mu jottelul na ko suñu xalifa di suñu wayjur cheikh muhammadul muntaqa di ñaan yàlla yàlla nañ fi yàgg taam wér waaye di béral nuyoo cheikh muntaqa cheikh muntaqa mbàkke ak ziyaar ci sama cëru bopp waaye di béral nuyoo sëñ bas abdul xaadir di ka ndokkeel ci bis bi di ko ñaanal yàlla taxawaayam yàlla na yàgg waaye di beral nuyoo <clears throat> mbokkam mi dendeek moom di sunu mbokk di sunu lépp muy a Cheikh Mansour mu sama maam Abdoul di ñaan moom itam taxawaayam yàlla na ko yàlla yàggal di ziyaar mboolem kilifa diine bu fi teew waaye di jagleel nuyoo ministre l'intérieur nuyoo réew mi yépp ñu tekk ci loxoom mu jotul nu ko suñu président de la république ak première ministre di ziyaar Abdoulaye Makhtar Diop di nijaay ci man waaye di ziyaar grand serigne de Dakar Alhaji Ibrahima Diagne di nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp xam naa ci gàttal suñu ma waxee Serigne Cheikh kilifa diine yi am nañu kàddu waaye yow danga bokk ci njaboot gi kon kàddu njabootu sama maam Moustapha da ci am cër buñ ma joxe loolu loolu lu sori la ci man ma ciy sant yàlla nag di ñaan mbooleem ku fi teew yal na yàlla dimbali la yokk sa sutura xam naa ci gàttal bis bi dafa am nu mu tudd dafa am ñu tax ñu teew fi waaye dafa am ñetti aaya yoo xam ni bi ma toogee tey ci suba di ci gëstu laa jàpp ni ànd na ak bis bi mooy fi sunu di wax ci ahzaab inna aradna al amaana ala alsamawati walardi waljibal fa abayna an yaxmilnaha wa xamalaha alinsan wa asfaxna minha wa xamalaha alinsan innahu kaana zaluman jahula sëriñ bi ndono ndono li yàlla bëgg bi mu ko wàccee gaaral ka asamaan ak suuf ak doj yi ñoom ñëpp dañu gàntal nit tàllal loxoom bi nit tàllalee loxoom dafa ci am ñu échec am ñu réussir te li ëpp nag ci nit ñi dañu échec waaye nag ñi réussir seen mission dañu am ndono to ndono yooyu ñu am bu ñu sàgganee mën na yàqu ci seen loxo sunu boroom alerte fa xalafa min baadihim xalfun adaau lsolata wattabau lshahwata ndax ñi topp seen bekken seen ndonoy maam yàlla tagg ko yëkkati ko mu tegu ci seen loxo ñu topp seen bekkeen ba ndono loolu réer ci seen loxo ma ne ñooñu yàq nañu liggéeyu seen maam waaye nag ñi réussir seen ndonoy maam ñooñu ñooy ñan ñoom la yàlla di joxoñ walladina amanu wattabaathum durriyatahum bi imaani alxaqna bihim durriyatahum loolu la wax wa ma alatnahum min amalihim min cheyin ba ci yàgg mu ne kullu imriin bi ma kasabat rahin kon ñi réussir seen mission yàlla yëkkati na seen daraja li may laaj nag mooy soo maam xaadim rasuul amul kenn ku am sikki sàkk ne mission bii ko yàlla dénkoon mu taxaw ci taxaw na ko naka yàlla bëgge woon naka yonent bi bëgge woon bi muy dem nag moom sëriñ Touba bala muy dem ñoŋal na woote bi muy mission bi défendre na woote bi muy mission bi donte le nasaraan yi song nañ ko jaar ci wet gu nekk sama maam taxaw aar mission bi ba waxtu demam jot mu jox ko kan ni ko Alaaji Mbàkke yu fay waxe léegi mu dénk ko sama maam Mouhamadou Moustapha sama maam moomu nag ah dal taxaw yaa ni fa kaana xayra xalaf mu doon kuutaay loo xam ne tànneef la ca tànneefam nga li yàlla dénkoon maamam moom mu donn ko sama maam Modou Moustapha yàqu ko daf ko ñoŋal yaatal ko développé ko waaye nag mayul bunta nasaraan fu mu yàq liggéey bi ndax léeg-léeg ba ñu dalee ci sëriñ Touba mu dëgër lool Serigne Touba dem ñu ne ah nañu seeti doomam ndax amaan na mu nooy ba ñu mën a mbatal suñu liggéey ci ñoom waaye dañu ñëw fekk sëriñ sama maam Modou Moustapha mu wex xat ñu arrière. sama maam Modou Moustapha ëlbatiku na uuf ay rakkam def leen ni boppam jox leen cër ba ñu xam yéene seen bàyyi ñoom ñëpp ñu ànd na ndax moom bu jiitu woon am ñu koy yàqal liggéey bi du agsi fii waaye dafa jiitu am ñu ko dar mu def leen ni boppam ñu taxawu ko nag dimbali ko ci liggéey bu rëy bii mu am waa gaañ mag ñooñu seeni bànneex seeni bànneex dañ ko ëlbatiku woon jox ko yàlla ba li yàlla bëgg moom lu ñu bëgg yàlla bañ ñu bañ ko kon laaj bi may laaj moo di ni ndax sama Mamadou Moustapha réussir na wala déet ah yéen ñi may déglu ndax réussir na wala déet ah kay réussir na waaye nag réussite bi réussite bi li koy wane mooy yàlla yëkkati yëkkati na ko darajay maamam xaatim rasul taxul nag mu tolloog moom ndax Serigne Touba kenn du moom du doom du taalube buy tolloog Serigne Touba lu ko waral baana li kulli man lahu wilaaya kaw nii li xaalixil baraaya aaya loolu doy na waaye li ci am solo mooy ñun ndono yi ñun ñii ñun ñii ñun ñii fi toog di sët si sëriñ Touba li nu war lan la li li war mo lan la mooy dégg naa ministre euh, jo euh, nu ñu koy waxee ci euh, Sonko waaw dégg naa ko mu ni seen slogan mooy jub jubal jubbanti ministre de l'intérieur na nga ko xamal ne que ñun ci loolu la ñu judd yaa ngi may dégg mu le ministre na nga xamal première ministre ak président ñi koy yàqal du ñun ndax ci loolu lañ ñu tàggate jub jubal jubbanti kon gars yi maa ngi soññ sama bopp ñun ñëpp li nu war fii ñu tollu mooy nu jub ragal yàlla jaamu yàlla xam ngeen yéen soo maam xaadim rasul bay na tool bi mu fi fekkoon sama maam Modou Moustapha ba ma koy tënk dama naan bay na tool bi aar na ko walla déet sama maam bay na tool bi aar na tool bi képp ku maandu xam nga ko kon ñun ñii fi des ñun itam góor góorgóorlu ba sàmm tool bi ci ragal yàlla wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu